la solution elle est elle est elle est elle si tu permets moi je peux donner peut-être deux ou trois grandes idées. Mhm. je pense que la, la situation est tellement sérieuse ah, ah waaw xam nga situation bi dafa dafa dafa dafa metti ba nga xam ne dama jàpp ne même euh, tey la nation est blessée parce que chaque fois ñu perte ab ndaw boo xam ne surtout dafa nekk ci diggu doole digg dooleem askanu Sénégal yëpp moo am lu ko metti moo tax j'en profite vraiment pour présenter mes condoléances parce que je connais des proches qui ont perdu des proches mais gis nga dama jàpp ne saafara si dañ ko war a li ñu ci war a jiital mooy d'abord les questions économiques question économique mooy lan mooy boo seetloo ndaw ñi jël gaal yi dem bitim réew ñi ciy mucc bu ñu dugg Espagne ba dugg Italie fan la ñuy dem ci ay toolu raisin ay toolu mboq ba ay toolu fruits européens loolu waral ma jàpp ne bu ñu aménagé fii diggante Bakel ak Ndar. ay téeméeri téeméeri junni hectares jeunes yooyu mën nañ leen capter dans l' agro industrie pour notre sécurité alimentaire muy wàllu mbéyum ceeb muy mbéyum blé muy mbéyum maïs muy également viande et lait donc les questions agricoles et agro industrielles war na nekk loo xam ne dañ ci war a teg tànk bu baax a baax a baax mën nañu citer yeneen yi mais peut-être ça prend du temps deuxième élément sur le plan politique c' là où muy ñëw sur les questions de démocratie et de mën a créer un rêve du jeune sénégalais parce que les jeunes sénégalais dafa soxla yar ça c'est la famille xam-xam la compétence mais aussi dafa soxla liggéey et je pense que bu buñ ko aménagé une école boo xam ne lam fay am ci diplôme dina méngoo ak la koom-koom bi soxla de du préscolaire à l'élémentaire second moyen de euh, second moyen euh, moyen secondaire jusqu'à l'université que curricula yi ñu fay jàngale mën a jox xale bi. mu conforme mu conforme aux besoins. tey bu fekkee da nga yor une télévision sûrement war nga soxla ñoo xam ne ñooy des des monteurs. Mm-hmm. par exemple war nañu mën a am une école qui forme justement ces monteurs pour que yow en tant que chef d'entreprise. à partir de justement de douze à seize ans. Mm-hmm. pour que justement ce jeune là boo xam ne boo ko soxla l'économie bu ko soxla fekk ko à l'école donc l'école dañ koy aligner sur ça mais même je dirais même jàpp ne même gis nga préscolaire maanaam maternelle. war nañ mën a jàngal suñu xale yi jox leen ay didactiques yoo xam ne méngoo avec la sociologie et l'histoire du pays et c'est là qu'on construit le rêve mais bu fekkee le le jeune dès l'âge de maternelle ñu koy jàngal Hollywood gis nañ foofu le tout le rêve est là-bas mais finalement dañ koy mettre dans un format c'est pourquoi ma dans le programme une école sénégalaise boo xam ne day fësal les références sénégalaises fësal le rêve sénégalais le rêve africain euh, l'école dernière chose je euh, sur les questions de, de, de démocratie judiciaire. Donc, il faut que sur le plan démocratique, et c'est là où les réformes sont importantes. gis nga Maïmouna euh, wax na emprisonnement tout à l'heure man je pense que war nañu def tout pour que la jeunesse sénégalaise s'épanouisse dans le système démocratique sénégalais maanaam jeune bi bëgg nekk ëllëg un conseil municipal ou un député il voit un système boo xam ne qui lui permet d'exercer ses, ses, manifester sa colère qu'on lui mette le cadre pour manifester sa colère parce que finalement et foofu lay jeexale sama kàddu bu fekkee jeune bi dafa jàpp ne fépp mu war a exprimer ay xalaatam dañ ko fàtt finalement la violence elle la retourne contre lui et, et malheureusement c'est donc sur le plan économique sur le plan euh, ni koy waxati politique et sur le plan de l'éducation mën nañ dem même sur le plan de la famille parce que aussi je pense qu'il pour que cette culture là que ces valeurs justement du du Sénégal ñu mën ko gën a gën a doole donc vraiment c'est un drame boo xam ne kii qui fait tellement mal et c'est pourquoi euh, soo ma ko may gis nga boo jëlee les ressources naturelles du pays les ressources minières daanaka boo xoolee leur déplacement ni ñuy déplacé woo noonu la jeunes yi déplacé woo tu prends l'or ñu koy jëli yóbbu ko bitim réew réew yi ñu koy yóbbu fi ñu koy toggee bu fa jeune sénégalité bëggee dem ci immigration il n'aura pas c'est pareil pour les minerais l'attapulgite c'est pareil également pour le gaz et le pétrole donc c'est pourquoi lépp lu ñu mën def et c'est ma conviction war nañu mën a transformer nos richesses au pays pour fixer cette jeunesse dans le pays et quand ces jeunes verront justement que les richesses qu'ils ont dans leur pays togg nañ ko fi defar ko nañ ko fi parce que les emplois qu'ils vont chercher en Europe ils l'ont ici mais naturellement du euh, nañu arrêté mi immigration parce que l'immigration continue à exister autant le <laughs> que le monde sera mais je pense que on, on arrêtera justement cette hémorragie de nos jeunes talents vers vers, euh, vers, vers